ñaari euh, yaar nga jox ko waaw jox ko balaa dafa yàkkamti nag defal ko ko ci mbuus ah maa yàggoo fi yow. yàgg naa fi tuuti rek maa ngi woon taxaw nii sànq naa yegg si tuuti rek même pas ay cent mètres. ah baal ma de kii pour mu daggal ndaw si tiseen bii nii day dem. waaw wax nga dëgg. ah waaw waaw. man ma yóbbante. Ah. ginaar yi nee na pour ma joxaale. man commandé naa ko. Ah. ginaar yi. Ah. commandé naa ko assan ma ma dëkk Sangalkam moo ma ko moo ma ko war a indil. Hmm. moom moo ngi ñëw nag mu ngi ñëw ndax dama ni ko mu def ko ci càq càq pour mu indi. Ah, dina ko indi waaw waaw dina ko indi kër ga waaw. moom loolu a pas de souci. man de moom waxoon na waxoon na ma ko kañ. waxoon na ma ko waaw moom ñaata mooy doy sax. xam nga ni day wuuteeg yeneen suukaru koor yi. Ah. ndax ñun du ñu am jëkkër ju toll ni yow ah ngay ikoon ci réew ñuy dem di yóbbu ay suukaru koor ay suukar ay ay ay ay café. ay xaaj gën waa di bëri. waaw yow gëmmal rek. ma jox la ñaata. Hmm, boo ko joxee cinq cent mille dina baax. cinq cent mille. waaw. garaaw naa ci yeneen cinquante. cinq cent cinquante. waaw paa maa waaw jël ba ngaa jël fukk yi sax mais bu mu ko yëg bu ko yëgee dina ne dama lay jox sa ginnaaw fexeel ba rek yow. ah yow tamit maa ngi sa ginnaaw tool. waaw boo xar say cinquante rek. waaw jox li ci des. dégg nga waaw. léegi kon ñu bàyyi ba nga wàcc. incha allah bu ma wàccee rek naa la ko jox lépp yow bu ma bu ma wàccee. Mhm. teg naa sama taat ci kër gi rek. Mhm. mooy jox naa la d'accord tax ñu nopp dina baax. incha allah yéen laa fi nekkal de. ndogali moom. bu soobee yàlla bu dara manqué dafa leen mën ndogali ni mu waree rek naay lekk bu suur di naan ba màndi te tàndarma ji di bari nag ndax tàndarma dégg naa baax na cig ndox waaw sew sew bu rëy ndax yàlla bu ne yéen ñi nga xam ne da ngeen maa gëm kon foofu la muy tekki mooy am na ñoo xam ni gëmuñu yàlla mën noo jébal nag duñ ay jullit waaye nag duñ mën a woor moo tax nag yàlla kon ba muy sita ni nag yéen ñi nga xam ne da ngeen maa gëm kutiba aleykum siyam fartal nañ seen koor koor nag dafay yar bakkan waaye koor dafay defar nit ki moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon su mu tasixu koor leen nax ngeen wér kon foofu la nga koy dégg mooy koor day tax wér démb sax am na ku ma laaj na ma waaw oustaz sama dënn bi fii day metti lu koy mel ne daal koor du baax ci man ma ne ko déedéet koor googu moo koy faj waaye sew sew bi nekkaat foofu suñu borom ni mu ko farataale ci ñun nii la ko farataale ci ñu ñu jiitu woon ndax ñu ñu jiitu woon amoon nan ay koor ku mel ne catholique yi gis nga ni ñuy woore waaye nag ñoom li leen yoon may mooy ñu dog benn yoon rek ci benn waxtu nga xam ne kon bis bi li muy réeré benn yoon rek lañ ciy dog waaye tamit ñeent fukki fan la ñuy woor waaye ñun jullit ñi nag suñu borom nag wàccal ñu ko nag ñuy woor rek fan fanweeri fan wala ñaar fan ak juróom-ñeent waaye li ci sew sew nag mooy ñun min tulu al fajr ila ghurubi samsi ñu ngi koy tàmbale ci bu jant bi fiiwee xam ne ba nga xam min tulu al fajr bu fajar di xottee rek bu ne asalaatu xayru mina waaye nag bu ne nag dog jot na nga xam ne min tulu al fajr ila ghurubi samsi bu jant bi soowee rek ñu daal di dog kon loolu nag nekk na loo xam ne lu ama am solo la imaam loo loolu kontaan naa li ma xamal nii mhm. am naa ci mbégte bu wér mhm. wante imaam mhm. boo nekkee ci weeru koor nan ngay dundee say dëkkandoo macha allah laaj nga laaj bu am solo mooy boo nekkee ci weeru koor nan ngay dund ak say dëkkandoo mhm. ah, dëkkandoo nag jàmm ci gën mhm. ndax dëkkandoo lu mën a xew rek mooy njëkk a ñëw mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man kaana yumin billahi wal yawmil axir fal yuhsin jaarahu képp ku yàlla ak bisu penc na nga rafetal jëme ci sa dëkkandoo mooy bu la yàlla mënee gan booy ndogu xalaatal ne sama dëkkandoo bi ma dendalkat ndoguwul kon at daaru xablal jaar maanaam at jaaru xam la daar dëkkandoo sax da nga ko war a tànn avant sax mhm. waaye nag comme léegi ni ñuy luyee loolu mhm. dootu mën a am waaye yow mi nga xam ne danga ngaa dëkk ay dëkkandoo yàlla maa ne la gan na leen dimbali waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nag man kaana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'di jaarahu képp ku gëm yàlla ak bisu penc bu mu lor mukk dëkkandoom mhm. am na xadis boo xam ne sax ne na jibril dañul ci di ñëw ci man ba ma def sax ba defe ne sax dëkkandoo dafay dond kon nag ñu bu baax a baax jëmale ci suñuy dëkkandoo yu ah yow gars yi kañ la ñëwoon ah c'est bon xam nga ne foo duggee ma du ma génn. man mii ma jàpp sa àdduna ma la nga jaay ma. waaw affaire bi sukkaru koor waxtaan naa ci moom de na su wàccee dina la jox cinq cent mille. cinq cent mille ma yàlla ne ma fukki waaye bu bu jëm kaw de dama koy nag ci wax beneen bi ci des cinq cent mille bu ñu la ko waxee sukkaru dam day xamal ni am na lu la war korite gaa ngi nii di ñëw xamal ma la war yow de xamal ni bu ma la waxee cinq cent mille sukkaru ko yooyu turu sukkaru koor rek nga mën a ba jël cinq cent mille ko joxee sukkaru koor xanaa ma woye di naa la ko wax léegi noo ko def lu yam turu suukaru koo riiral pare toog ne fagum lijjante na man xam la laa gis moo demee cinq cent mille léegi cent cinquante mille jëndee ko suukaru koo li ci des côté man de bandi laa waaye yow it li ma wax daa bari nag <laughs> eh, nga jàngee xam te yàlla lii